asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 17 juin 2020 ñëw ak ci yëglikaay sunu lamb la ñuy xëy tey dooreeti ko yëglikaay ba nag tey fa mu xëy ñëw wala ci ki mu génn mooy Sa rek ki Balla Gaye numéro 2 daal lañu sunu lamb tey xëy indil ak am taxawaay am ci lamb ji mu mel ni ki nag kii nga xam ne moo di Sa Thiès daal li tax yëglikaay bi daal laaj lan moo tax ba tey volcan bi daal mënta takk wala boog mu kalaate jëm ca kaw a kaw a kaw lii la sunu lamb xëy tey samp ci ab laaj am na ñoo xam ne nag wala ñoo xam ne ñaari ñangeen la yoo xam ne combat bu ci ne su muy bés bu mag Sa Thiès day ñàkk bés booba ka ko njëkk a xañ combat bu mag a mag boo xam ne dafa waroon jaare naaw dem ca kaw mooy digganteem ak Malick Niang daa ñàkk boobu combat ñu ne déet na waay ñu joxati ko Boy Niang mu nekkoon bunt boo xam ne jàppoon nañ ne mi nga xam ne moo di Sa Thiès ñàkk combat ma nga xam ne mooy mu Pikine moo tax nag jamono jooje ñu laaj Bécaye Mbaye ne ko lan mooy problème bi lu mën a décanter situation wu Sa ba mu dem ca kaw a kaw père Bécaye ni leen daal wax ji jenn wax dong la te itam nañ ko Thiès daal li ko war mooy mag gi mu am ci lamb ku ko am muy Balla Gaye numéro 2 père Bekaay jàpp ne Balla bokk na si dàq bëri ci lamb ji wala mu dàq caa bëri mu nekkoon kon la ko war mooy mu dem topp ci ginnaaw Balla Gaye numéro 2 ànd ak moom ci wàllum lamb mu koy digal muy def mu koy tere muy bàyyi ne na lii bu ko nangoo moom def ko léegi mu yegg fi ay moromam yegg wala mu yegg fu Balla yegg wala mu degg fu ko raw lool mooy wax ki nga xam ne moo di Bekaay Mbay keneen koo xam ne moom tamit day loo ci mën a dégg lambam gëj naa neex bu yàgga yàgga yàgg jàppal ci 2013 daal la gëj a am victoire muy lagros la Cobra fas Fass comme ni ko sunu lamb di wooyee mel ni ki nag moom daal fi mu nekk nii ci lëndëm dëgg dëgg dëgg ca la nekk maanaam daal ay mbiram moom jaxasoo na ba yegg ca lool lool moom Lac Rose bu fas sunu làmb xëy tey ñëw andil ñu mel lu mel ni ki lool ci moom keneen koo xam ne yëglikaay bi ñëw na ci moom moom nag moom jamono jo Lac Rose amee ay jafe moom daa mel ni daal juróom-ñeent at toog na ko yoo xam ne daal mbër daanu ko muy koen sa lan saar yëglikaay bi ñëw na ci moom ci yoon wi nga xam ne ca la nekk di yéeg jëm ca kaw a kaw sunu làmb xëy tey wax nu ko mel ni ki nag ci biir carrière am daal boo bëggee dégg-dëgg am na ca treize combats yoo xam ne bëri na ko am ca onze victoire benn défaite la am ak benn combat niil defet ba nag dix mille problème moo ko ko yóbbu niil ba moo jën kayre la mel ni ki moom mu nga ca aw yoonam moom kuwen sa ba lam saar di dem ak demam ñeneen ñoo xam ne moom yëglikaay bi xëy na sëppi muy Modou Lo Balla Gaye Eumeu Sène ba ci Bombardier ji tudde leen li nga xam ne ni daal mooy ñeenti seigneur yi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ji sunu làmb xëy tey andil ñu lu mel ni ki noonu ñeneen ñoo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ci ñoom wala koo xam ne yëglikaay ba xëy dalal ko muy Big Pato di ab police moom nag daal nee na ay vrai dirigeant ay ñu capable pour jiite làmb ji daal la jàpp ne amuñu ko la ca tamit wax na ko ne na ñiy réclamer ne Alioune Sarr na fi joge bi patooy wax de ne na ñoom ñooñu ci boppam amuñu niveau boo xam ne mën nañoo jiite làmb ji ñëw na ci combat royal ba dox ci diggante bal Baldé ak ka nga xam ne moo di Modou Lo moom bi patoo daal loolu la xëyee tey am na keneen koo xam ne yëglikaay bi xëy na ñëw ci moom muy benn xale boo xam ne les seniors lañ koy wax nekk école de duubalees moom xale boobu tamit yëglikaay bi di suñu làmb xëy na tey ñëw andil ñu ko ñoo xam ne moom des leen a fàtte askan waa leen fàtte wala état bi muy ñi xam ne ay lion lañu wala ay lion di Adama Diatta ak Isabel Samb loo ci mën a dégg daal seenu taxawaay moom ci compétition yi am na solo waaye nañ leen war a taxawoo moom ndax ñu ngi leen koy taxawoo loolu yëglikaay baa xëy tey ñëw andil ñu ko ci ab muy ñaar ñoo xam ne daal parce que boo xoolee de ñuy doxale jaar na aw yoon waaye ndax na ñuy doxaleek ñoom jaar na aw yoon loolu mooy laaj ba bu nu fa jógee nag dañuy dem fa nga xam ne moo di record record moom kañu fay fekk wala lañ fay fekk mooy coow xam ne fi mu ne taxaw na ci làmb ji muy conflit génération maanaam daal xale yi nga xam ne ñëw nañ ba sës ci kaw mag ñi mu mel ni nag fi mu nekk ni moom jaxasoo bëre daa mel ni est-ce que nu fa war a mën a am moo xam Gris Bordeaux Sa la wala tafaatin ak rëg-rëg yëgli kaay baa xëy ñëw andi boobu laaj buñ ca laajee Basiru Baabu nag moom la mu ca gis moom mi jiita mënaat say daal ne li am ba des daal fi mu nekk ni combat yëpp yëpp waras a def ñu bëre ngir làmb moo jiitale amateur authentique moom tamit day jàpp na ne yooyu combat daal ay genre affiche la yoo xam ne yu ama am solo la Assane Ndiaye ma jiite Baol production di promoteur moom tamit jàpp na ne daal li am ba des combat yëpp yëpp possible na ngir bëre am loolu mooy ay waxam keneen koo xam ne nii moom wala beneen écrit boo xam ne mooy écrit Kër Massar mbooloo daal loo ci mën a dégg daal ñu ngay résister de donte mbir ya metti na yëg kaay baa nu xëy toppal ñu leen douze victoire douze défaite maanaam daal la am ci ay note waaye seen tête de ba di jokkeel moom kenn gisatu ko ka nga xam ne moo di dorog ba tamit maanaam daal woote ba wuyu ko moom it gëjës na koo gis keneen koo xam ne nii moom wuyu ba ñu ko wuyu tooyal na xolom muy faabi fëliir moom daa mel nit ña seetaanuñ ko moo tax daal loola tuur na ay rongoñam ndax fu nekk nit ñaa ngi fay jóge di ko jàppale ngir mu génn ci feebar bi kon ñun tamit am nañ droit ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla teggil boobu feebar moom faa bi filir waaye itam képp ku wéradi moo xam da ngaa wala nga sibiru wala lu la mën a dal daal yàlla na la yàlla wéral delloo la ci sa sago waaye àddina tëdd noonu wér ak wéradi ñoo ànd tooy ak wow ñoo ànd man ak mën a dinoo moo ànd waaye yàlla na yàlla def rek buy ñëw nga am ñu la taxawu loolu moo ci am solo loolu nag des koy liggéey mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi lay nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi nu ànd ak yéen si jàngatu ànd Babacar maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay Ndeye Coumba di la delloo ziar di ñaanal jàmm te di ko saaku ci yow di ko ñaanal tamit internet Leewtoo TV ak fu ñu mën nekk si àddina bi rek. Amin baabaka ni ñëw nag ak sunu laam sunu laam daal dafa def benn taxaw seetlu nee na ki nga xam ne sa baay mooy Double Less def def lu nekk si laam ji sa sa sa frère di Balla Gaye nekkoon fi des arènes bi nag moom ñëw ki nga xam ne mooy Sa Thiès nañu lam moo tax moom ba léegi fëllagul daal comme kii di xam ne mooy papaam wala ki nga xam ne mooy magam di Balla waaw loolu am na solo defe naa Double Less say sama ci làmb Balla Gaye de la bokkal ndey ak bàyyi ci làmb defe naa nga ñëw yow de euh, nekk mbër war a aw ca yoon wa boo ko nekkee nag ba pare am na lu mu laaj ci loo war a doxale ak mu a taxawe pour xëy na nga yegg fi ñooñ yeggoon wala nga yegg fu raw fi ñu yeggoon nag Sa Thiès am na ay grand rendez-vous yoo xam ne gañe na ko même ni ko mën nañ ci jël bu mel ñàkk na ko diggante ba ki nga xam ne nii moom moo di ko loolu nag boo koy gis combat yi da nga naan tamit ci ko indi ci excès de confiance bu muy bëri waat parce ak Malick moo ne moo la ko waa ji mën ko freiné ko mu mu kaw dëggu vraiment ñu daan ko moom booy ñam tamit boo xoolee lu mel ni muy bëree des am na combat laaj loolu yoo xam ne boo ñëwoon nga accéléré am na combat defe naa dafa laaj joxe temps yaa ngi dégg am tamit benn ko ci kën na topp ci ginnaaw magam bu ko toppee xëy lu mu bëgg a am ci làmb mën ko am waaw loolu tamit du ñu mën a wax lu dul daal muy man ak moom ak yow ku ci nekk ak yow ñun ñëpp ku ci am nga kilifa sa kilifa nag loo mën di def lu mu mën a doon lu ne rek war naa nekk ci biir di la digal ngay def di la tere ngay bàyyi ngay waxtaan ak ñoom lu bari bëri defe naa tey nga mag bu mel ni Balla ngeen bokk génération nga nekk ci làmb mu nekk ci làmb loolu ñu ko mën a am priorité sens la bi ne war na ko mën a a mu gën fi ko wàllam di xaare bi fi la ko ay supporter di xaare ñu de l'arène fa su mel ak yi nga xam moom naa seigneur moom

ba dañ naan est-ce que bëri ci làmb bi wala bokku ci fi dàqul bëri wala tamit liggéey la koy may ak série ak bëgg li ngay def Eumeu Sène itam mën naa ne moo comédie mën naa ñoo bokk benn kii génération parce que ñoo jiitu ñi ma ñi ñaar ñi mais ñoom li li jël sali ci seen carrière lay ko mooy longévité bi maanaam guddaayu carrière bi parce que boo xoolee avant 2000 ñu ngi ci làmb ji yaa ngi dégg ay mën nga leen kale ci ay 97 wala sax lu ko romb lañ dugg ci làmb bi ba tey nii nekk ci te à tout leen daan ci wala dañoo mënul bëri wala naan non day fekk nag sport da ngay ñëw war a ñaar yaakaar naa ku ci ne ci ñoom ñaar dégg nga roi am nga sa hygiène de vie baax na te loolu dafa am solo ama seet nekk ci lamb ba tey bokk ci yi gën a seet ci lamb bokk ci VIP yu loo xam ne ci ñoom ñun kenn amul ko ci mooy roi des arènes yoon muy loo xam ne defe naa itam ku sérieuxul bëggoo li ngay def te tegoo sa ay mbir yoon amoo encadrement te nangu woo muñ doo yegg si foofu parce que lépp looy def ci àddina bëgg caa am waaw góor ëllëg jàppal ne ay difficulté koy la ba day yegg au kon daal ñoom itam xale yi ne ci seen suuf war nañoo oy ci bu baax a baax. Babacar nag difficulté boobu nga xam ne war nga egg si sommet moom la dal daal nga xam daal mooy jaanu euh, Fass comme ni ko la Cobra Fass daal ba léegi meññeeku daal. <laughs> màtteetul daal <laughs> maanaam dangay waaw moom itam bi mu nee saax ci làmb dugg ku ko gis da ngay gis ne kii. am na siru champion maanaam war a mën a nekk quelqu'un ëllëg ci ñëpp di xool Tapha Gueye am na loolu ndax li tax am na audace mën naa bëri te itam populaire nekk mburu Grand Dakar waa kubi waa Grand Dakar yëpp di ko supporté ak Fass ak Médina Colobane ak zone yooyu mu nekk mbir moom bu duggee Demba Diop day fees dara ci xale bokk na ci xale yi jëkk di remplir Demba Diop moom ay ñoom siptaat ñu mel ni ki noonu kon defe naa tey nag bu demee ba ci biir carrière am plaisir bu dee am na lu mooy boo ko blessure ba dabe dafa war na fayu ca teel parce que sportif mooy amee blessure mhm. gis nañ fi ay jour di damm damm gis nga fi la kaada démb euh, Djibril Cissé mhm. international français damm na fi ñaari yoon ñaari tànk yi mais fa ñu ñëwaat compétit Demba Ba anam mhm. damm ba ñetti Kalidou euh, kii nu mu koy wax damm na fi bu yàggu mën nañ koy lim et tant ay jour yoo xam ne dañuy ne ci biir compétition damm tàllit ba yeex ba tàqali ñu faj leen ñëwaat di compétir kon loolu la foofu la def erreur mais nag des fois euh, xam nga làmb la plupart li cëpp dañ la naan mystique mystique bi moo leen di sonal ba des fois da ngay sax mais doon nangoo faj bi kon ñu koy ñaanal daal mu dem faju bi comme nañ actuellement mu ngi a ci làmb bi ndax moom xale yi nga xam ne am nañ ci moom yaakaaru làmb bi la gis nga seen bopp. boobu nag ñi nga xam ne ñoom ñoo yor Samb si côté jigéen ñoom ñaar seen presque retraité Isabelle moom retraité na Adama Diatta moom euh, maanaam presque retraité na ñoom daal gisaguñu ba léegi euh, république bi lu leen war a rendre moom la Aliou Sall doon kaasa nee ne euh, république war nañ leen delloo njëkkal ndax taxawal nañ fu nekk Sénégal. waaw loolu day wax wari su gos Aliou sax loolu boo kaas ñu koy dégg xam nga lu tax parce que yow naa fekk ñu def ko bu yàgg balaa jàll gisaat bi wax. parce que defe naa ñoo xam ne fu ne représenté nañ ko seenum réew te saa bu ñu waa sept fois champion d'Afrique te naa ah, ñoo xam ne pour man dañ leen war parce que gàddu sa drapeau génn compétir yi ñëw dañu mi wala ñi jiite réew mi ndax ñooñu nga wax bi ñuy compétir ñàkkul toog nañu jamono laay waat ba ci jamono yi Macky ñëpp ku ci ne tey amoon nga droit delloo leen jukkal sama am na su ko defee yow mi nga xam ne nag yow yaay ñëpp yow lay baax bu keroogee loolu lay dalal neexal xol nga rendre ko hommage publiquement ak ñëpp di ko gis parce que ñooñu am nañu mérite muy Isabel muy Adama Diallo loolu Alioune Sarr wax daal ñun vraiment itam ànd nañ ci bu baax a baax dañ leen war a delloo ñu ko bu baax. Babacar suñu jógee nag si sunu laam yi dem si record record daal nee nañu ba soomel ginnaaw bu mu euh, initié classe bi bu ñëwaat daal si laam yi dafa fas yéene tëgg grand compte petit nee nañu gis mel ni comme Sa Thiès ak Gris Bordeaux daf lay nag ay observateur ñu bàyyi si jox si euh, sa sànq si seen kàddu ku si mel ne Bassirou président des managers kon mu gis daal nee na yooyu daal war na mën a am euh, ki euh, moom moo manqué wala am si Assane promoteur nee na combat yu nekk mën na am si ñoom. waaw loolu daal yaakaar naa ne retour Gaston la ñuy njëkk a wax yàlla nañu nekk ak jàmm ñëw daan def la mu daan def ci jamono yu béy bi sax yaa ngi war ko raw. parce que waaw deux waaw parce que itam yaakaar mm, li may wax rek moom ci làmb personnalité am ak ak léppam moom dama naan na ci défenseur làmb yi garçon bi waaw te ay tafatin ay Balla Gaye ñoom Lac de Guiers ñoom ma baal <laughs> mu ne Zos Zos kooku sama doom nijaay la xam nga moom la sant man Ngomeen sama doom nijaay la Zos maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax ah di nuyu Ngomeen waaye li am solo daal mooy loolu moom am na solo yàlla na gas soo ñëwaat te bu ñëwaatee loolu ñu wax. yaakaar naa ñi wax Bassirou Babou defe naa tey amul lu mu di jàngat ci làmb Amadou Mbaye président des amateurs authentiques wax yi noppi Assane Ndiaye itam bi mu ci tolloo waral apprentissage maanaam jàng jàng na ba tey nekk ko am ci kaw bëree a neexal te garçon moom xam nga ne yow xam xamoo bu baax di ñëwee moom li naan c'est impossible moom lay fene impossible te man loolu dama ko bëgg ci te mooy genre garçon moom li Nicolas dama leen di gis te loolu mooy liy suqali làmb ko. avec un tout est possible. bien sûr waaw. Babacar si kàddu yi neex na ñu daloon daje suba incha allah ak Aïcha Faye balaa boobu nag muy gërëm sama yaay bu baax démb gërëmoon naa ko mais yàgg maa xam gi moo tax mu plan dagg dagg feewu remerciement yi. te waay di sama yaay bu baax ndax ma tawate eh, moo fi nekkoon lu rek laa gisoon sama ay yenn nit ñoo xam ne ñu ngi si si extérieur ni ñoom. Astan euh, Ndeye depuis Italie ki nga xam ne mooy Abdou Gueye depuis États-Unis ñoom comme ni ñuy waxee rek seen mbir jàpp nañu ci combat bu baax a baax a baax. Euh, ñu gërëm tamit hôpital euh, bu nekkoon Mame Abdou madame Diaw aussi. loolu maa ngi koy remercier bu baax di remercier aussi waa ba teg ko si sa loxo rek nga jàllale nuyoo bi di nuyu daal ñi ma xam ñëpp ak. gis naa kàddu yu rafet yi mu wax ne la a sa yóbbu mu na la ne solo ñu koy nuyu Ramos Ndiaye di nuyu ñëpp di wax ne rek comme li nga wax moo ci solo xam nga wuy jur moom dafa fort ci doom parce que li tax muy bàyyi muy yaay ñoom ñëpp ku ne da nga ci sa doom parce que dañ leen day mooy liggéey mais bàyyi moo yor signature yaa ngi te itam sant bàyyi bi luutal yaay di wax dafa am solo ndax sa yaay mbaaxaayam xëy na loolu moo tax tey mu toog fa ba yëpp mën a ñëw ba ngay feebar sax mu ngi leen jàppale kon yàlla yàlla guddal fan guddal ci ram di ko ñaanal yaay yëpp ak baay yëpp ak bàjjen yaak nijaay mag yaak ñëpp daal yàlla na ñëpp am jàmm di nuyu ku mel tuuti yaay Sarr moomu mais mention spéciale tamit ak Khadiros sama rakk sama jigéen maa ngi koy nuyu bu baax a baax. <laughs> non xadim yooyu su yor néew ma dara sama soppe rek dama ma yàgg a toog di tamit euh, ñi nga xam ne ñooy soppe yu Babacar yi fans club Babacar bi 100 pour cent maa ngi leen di nuyu bu baax fans club Leewtoo TV ñoom bu dee fans club yi ñoom grand laaj Pape Ndiaye Pape gaa yi fa nekk yëpp su ma limee dinaa dugg moom ñoom Baye Sall ay Mame Gour Diasaka Diouf Sène fans club Leewtoo tamit ñoom Cissé Ngari yi fa nekk yépp